mobilisation exceptionnelle derrière Mamadou Mbengue li ñuy fekk ngay mexe mooy des militants engagés des militants disciplinés te wane ko ndax depuis quatorze heures yéen a ngi fi ba heure bii kenn bougéwul loolu lépp nag wane ni pare ngeen fal le président Macky à la prochaine élection présidentielle au premier tour avec pour ñu falaat président Macky Sall falaat président nag jafewul lu tax mooy biñ ko joxee Sénégal ba léegi mi ngi ko teg ci yoon bu jub mi ngi ko booleeg vision bu leer muy plan Sénégal émergent te plan Sénégal émergent xam ngeen ko ñetti axe yi mu boole axe 1 transformation structurelle de l'économie et croissance ci loolu dugal mbay mi te gis ngeen ni li ñu am ci mbay ren bi senegal de Sénégal mosuñu koo am li ñu am ci gerte gi am ko ci ceeb bi am ko ci dugub bi am ko ci légumes yi Sénégal mosu koo am boobu ba léegi ci la dugal tamit énergie bi ñu commencé meeting ba léegi courant coupé wul Sénégal mi ngi commencé fàtte délestage ci la dugal infrastructure Tali, autoroute, il a Touba, de fer. Le secrétaire d'État est là. Qui le double, nous paraît, paraît, paraît. Qui le double, Tamit Axe 2, Mouy Capital Humain, Protection Sociale, Développement Durable. Qui le double, les bourses familiales. 300 000 familles, 30 milliards dégagés dans le budget 2016. Qui le double également, il y Programme d'urgence de développement communautaire. jàppale dëkku àll yi dugal fa courant dugal fa ndox dugal fa électricité jàppale jigéen ñi ci liggéey bi bare coono ci la dugal également la gouvernance la bonne gouvernance Sénégal léegi yàq bi wàññi ku nekk dootoo defati lu la neex parce que président teg na nit ñi ci yoon ku ne loo yor di nga xam li nga yor lan la loolu mooy la bonne gouvernance et la gouvernance, les politiques de territorialisation, la paix et la sécurité jàmm am na ci réew mi kon bu ñu amee président bu me noonu li ñu war mooy ñu falaat ko prochaine élection au premier tour te loolu xam nañ ni Ngaye Mékhé fii liñ fi gis ñun yéen xawma ma ko parewul mais yéen pare ngeen liñ ciy dolli mooy ngeen bokk ndey bokk baay juboo lu leen nit mën a wax te waxu leen ngeen bokk ndey bokk baay juboo waxu leen li président bëgg président dafa bëgg ngeen bokk ndey bokk baay juboo Mamadou yaa ngi abaat un excellent travail mais ñi nga xam ni dañu ngeen bokk nay bokk baay pour liggéeyal président liggéeyal seen gox action bi nga def nag c'est une action citoyenne te buñ demee président dinañ ko ko wax ndax nga jël ci sa alal toppatoo li jëm indi benn tasseuse buy nettoyer dëkk bi indi camion hydrocureur buy nettoyer dëkk bi loolu en tout cas ku wa a wax ni bëgg nga sa dëkk da ngay def comme ni nga def donc ñu ngi lay féliciter te exemple nga war a doon bu ñu war a montrer pour yeneen cadres yi nekk ci seen zone mën a participer oo développement économique et social de leur pays président engagement bi mu jëloon devant la nation mi koy doxal génne na une révision constitutionnelle ci fukki poñ ak juróom lii war a nag parce que amul feneen fu mu mën a mooy mu jébbal ko ñu mu ko war a jébbal jébbal na ko président assemblée nationale pour avis jébbal na ko conseil constitutionnel pour avis mais conseil constitutionnel du rendre avis décision lay rendre bu rendre décision nag comme nous sommes tous des républicains nañu respecter décision bi président moom kuy respecter constitution Sénégal kon nag ñun ñëpp ñu ngi wékku ci décision yooyu ñu war jël mais en tout tout état de cause parti bi pare na mobilisé wu na comme ni nga ay mobilisé woo pour ak lu man ci am ñu fal président au premier tour à la prochaine élection présidentielle ñu ngi leen di gërëm sant vive le président Macky Sall vive l'APR vive Ngaye Mékhé vive notre ami Mamadou Mbengue Gueye maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant wasalaam